waa asalaamaaleykum voilà donc bii benn vidéo bu urgent la bu ndaw rek boo leen xoolee comme niñ koy defee toujours euh, dafa doon information bu factuel bu gàtt te gaaw léegi laa ko jot ma fexe sénégalais yëpp jot ci un membre du conseiller constitutionnel du Sénégal moo ma jokkalool boppam mu ne ma lenn rek moo manqué ci dossier Ousmane Sonko bi mooy quittance bi nga xam ne moom la jëlee CDC te quittance boobu membre boobu confirmel na ma ne Badio kamara moo ko sàcc ci document Ousmane Sonko yi maanaam lenn li nga xam ne moom moo tere ñoom ñu confirmer Ousmane Sonko pour mu dem aux élections présidentielles ñoom xam nañu ne am na ko waaye dafa manqué woon ci document yi ñu doon càmbar mooy quittance bi jóge CDC te quittance boobu nee nañu baajo Camara moo ko sàcc ci document yi moom Badio Camara xam na ne moo ko sàcc te ki ko ki ma ko wax nee na ma bul révéler sama tur benn sénégalais mais baajo Camara ci boppam moom bu ma woowoon ma révéler ko turu boroom parce que ma nga foofu ak moom nee na Badio Camara moo sàcc document bi nga xam ne moo manqué ci dossier Ousmane sonk muy quittance bi maanaam ba ñu indee document yi da waruñu ko woon dafa sele woon waruñu ko ubbi ginnaaw ka nga xam ne moom mooy mandataire Ousmane Sonko mais Badio Camara dafa ubbi document bi sàcc ci li nga xam ne moom mooy quittance donc loolu rek moo tax parce que ñun ñëpp ñu ngi laaj suñu bopp question pourquoi conseiller constitutionnel dem ba ubbi document Ousmane Sonko te validé wu un membre du conseiller constitutionnel du ma leen wax un wala une un membre wala une membre loolu bi ma koy confirmer baajo Camara ci boppam laa koy confirmer donc Badio Camara c'est confirmé à tous les Sénégalais qu'il est le délinquant qui est en train de tout faire pour barrer le président Ousmane Sonko et on fera face il faut nga xam loolu boo dee woon sax ñu suul la dinañ la sulli la loolu il faut nga xam ko Ousmane Sonko il sera confirmé par A ou B déglu leen ma de parce que loolu mu sàcc déjà waa Pastef déjà le mandataire du président usman Sonko yor na copie bi yor nañu preuve yi wane yépp ne caisse des dépôts et de consignation a pris l'argent donc baajo Camara moo sàcc quittance bi bàyyi leen xel quittance bi bi nekk ci dossier bi baajo Camara moo ko ci sàcc ndeke loolu moo tax les sages disent que benn preuve rek la ñu manqué le mooy bu caisse des dépôts et de consignation mais alhamdulillahi rabbil alamin dinaa leen rassurel ne Ousmane Sonko ñoom dinañ ko confirmer léegi encore nee nañu Badio Camara su bëggee xam ki wax loolu moom mën na maa contacter directement dinaa ko ko wax ndax kenn la ci ñoom des sept sages mais sinon mënuma koo dévoiler ndax bëgguma pouvoir u Macky Sall bi jël bakkanam waa salaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu